Euh, ndax fi mu ne nii moom koor gi ñu ngi si woor wàcc je pense woor wàcc non eggaguñu woor wàcc parce que il nous reste que mais ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag dañu ñëwoon ba fii si diwaanu Mbour Géej on a passé une journée vraiment inoubliable riche en émotions euh, fekk si benn star boo xamante ni c'est une star planétaire j'ose le dire mhm. Bibiche euh, nekk artiste boo xamante ni vraiment def na ay ay ay ay preuve am ci série bu mag boobu ñuy wax cœur brisé Euh, ñu fekk si ko tey nag jëlee ko ci yeneen facette ah vous allez découvrir une personne extraordinaire derrière les vidéos yi nga xamante ni certainement suñu techniciens yi dinañ ko teg en PC mais bala ñoo sori dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog yéen bokk internet yi ñu soog di dugg ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi Bibiche maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. si jàmm sa tur bi man Gallo. Gallo maa ngi lay fay. Mhm. naka journée bi. ça va. je vais très bien macha allah. Mm-hmm. te yéen tamit neexal ngeen ko. Mm-hmm. yéen ñi ngeen xamante ne yéen a ñu gunge ci bés bi. Mm-hmm. waa Sénégal Buzz. je suis très contente. d' accord euh, journée bi comme ni nga ko waxee sànq ci début bi nekk na journée bu bu bu riche en émotion parce que euh, ci weeru koor bi nga préféré def ak ndogu ñi nga xamante ni. ñoom ñooy nekk ci orphelinat bu Mbour. Euh, d'abord, euh, comment l'idée est venue l'initiative bi naka la démarré. bon d'abord man amoon na habitude euh, di dem pouponnière ba des fois mais boobu ça ça maak sama benn copine maa ngi de passage bu ñu woowee Adama Zale. Mm. Euh, dañ fa daan dem les dimanches di leen jàppale parce que foofu tamit dëgg neexul dafa metti mm. waaw dafa metti xam nga da gis benn. di chambre bu yaatu xale yu bëri xam nga am trois tata wala ñaari tata yu fa nekk war leen jox ñu lekk war leen jox ñu naan war leen changer couche. Mm. des fois da ngay gis ay tubaab yu fay nekk toute une journée di leen jàppale. Mm. léegi man xale yi ni ñuy dundee noonu ça me faisait trop mal après benn jour mu ne man bés bu ma demee ba yàlla dimbali ma gaa amuñu dara sax mais as bu ñu am dañ koy bokk ak jaamu yàlla yi. di ñaan yàlla di ko yokk saa su nekk si laa tëdd ci weeru koor bi nii rek ma jékki rek idée bi ñëw sama bopp ma ne pourquoi pas ma def ay ndogu parce que man chaque année damay def ndogu fii ci kër gi comprendre nga woo samay xarit et tout ça ñoom ñëpp ñu ñëw yendu ci kër gi am nga jàppale ma et tout léegi jékki rek créer benn groupe te groupe bi dama ko créer ma ne leen damay def ndogu euh, avec les orphelins ma créé bi ñoom ñëpp kontaan ku si nekk naan ma waaw yow li initiative bu baax la c'est très bien ñun nañ la si jàppale amul problème xam nga léegi mën na leen waaye léegi ku nekk dafay joxe participation parce que je vais faire des t-shirts nga xam ne bu ñuy dem moom lañuy ñuy sol affaire yooyu ñu ne moom amul benn souci ku ci nekk jàpp si xam nga je remercie aussi euh, ñoo xam ne ma tudd seen tur. jàpp nañ ci bu baax a baax a baax. <laughs> moo waral bés bi ni mu mel nii tey. Mm-hmm. maa ngi remercier euh, Aïssatou de la série Cœur brisé. Mm-hmm. moom aussi jàpp na ci bu baax di remercier Lena Gueye di remercier Bijou Ramina mm-hmm. ñeme kaa. <laughs> kaawos <laughs> sama kaawos bu ñaal boobu. Euh, euh, maa ngi remercier éva éva de la série Cœur brisé Papis Fall xam nga ñoom jàpp nañ jàpp nañ si time bi daal jàpp nañ si maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp bu ñu fi nekkul waroon nañ ñëw aussi mais euh, xam nga rek ak weeru koor xam nga jóge Dakar ñëw ba Saly affaire yooyu noonu day xaw a metti ak seeni activité mais je comprends parce que tim la daal ñun ñoo far <laughs> léegi noonu la noonu la ñëwee après même pas deux semaines même pas deux semaines après ñoom ñëpp ñëw taxaw ma sama yaay aussi je la remercie démb ba trois heures du matin mu ngi fii di togg di dem di ñëw xam nga hmm. jàppale ma affaire yooyu noonu et tout ça hmm. d'accord ñu gis ni bi ñu demee parce que yow la ñu àndal ci convoi bi ñu duggee ci naa bi di def visite gis nañ fa koo xamante ni son excellence euh, Diomaye Faye lañ ko tuddee le président de la république de tous les sénégalais d'ici et d'ailleurs donc ñu mu am fa turandoo nekk bébé bu tooy xeeb moom moom mujjee ñëw ci orphelinat bi. téye euh, sama fii ne du bàyyi waaw waaw <laughs> ah, pas je pas je pas en tout cas delloon naa ko moom it mu jël loxo bi téye fii femme bi ne ma ah pare ne ko. leen eh. du la bàyyi monsieur Diomaye den du la bàyyi. ah mooy comme lu ma la wax rek foofu daal boo fa demee da ngay am émotion gis nga sama xarit yi ku si nekk kii kii ngi taxaw fii kii ngi sukk fii ku nekk ngi jooy c'est c'est vraiment triste affaire yooyu noonu moo tax des fois il faut ñu leen di gestu mais sama première édition la nag. Hmm. maa ngi ñaan yàlla mu nekk ay édition édition édition hmm. euh, ba nga xamante ne dinañ mën a dem euh, un peu partout pourquoi pas dem camp pénal hmm. des fois dem rëbës des fois ñu organiser loo xamante ne ni euh, c'est juste pour euh, di ñawal taalibe yi les korité xam nga les les les tabaski di leen ñawal xam nga des fois di def ay affaire di ko yóbbu ci distribuer un peu partout daal waaw man moom sama bëgg naa daal mu dem ba nekk lu lu kawe. Mm-hmm. Euh, ñu gis aussi euh, nga jooy fa jooyu metti am na benn xale boo xamante ni man je sais pas à la à la limite sax tuuti ma ne kii. xam na xam na fi xale bi juddoo xam na cosaanu xale bi parce que xale boobu nga ci seppi kott ko di jooy jooy yu méttee métti métti <laughs> lan moo waral loolu. non dafa dafa comme nu ma la ko waxee xam nga nee naa la ma fa daan dem ak sama benn copine. Mm-hmm. di ja di leen jàppale ñuy jox xale ñu lekk de temps en temps. Mm-hmm. léegi ma amoon amour boobu léegi xale bi bébé faat bintu yàlla daf ko def du gis silmaxa la ah. déjà loolu rek dafa métti mm. tu comprends. loolu rek dafa metti ci xale bi xam nga mm-hmm. ak na mu tuutee woon xam nga ma gis ko depuis jamono yooyu noonu mm-hmm. après pendant des années lu année di gën a dem mosuma fàtte xale bi mm-hmm. aw ma dem fa aw woon possibilité jàppale leen financièrement moo tax si laa profité aussi ma ne pourquoi pas ñu dem orphelinat de de Mbour vu que je je suis née ici et grandi ici pourquoi pas ma dem foofu def sama première édition fi ma dëkk xam nga moo tax ma dem def ko mais Fat Bintou dama ko dama genre dama dama amoon ay kii ci moom dama ko ah. ñeewantaloon donc ma ko fàtte moo tax bi ma demee ma ne leen wan leen ma faat bintu oh. ñu nekk di ko wër di fa di ko ñu ma dafa màgg boo demee ba gis ko doo ko xàmmee ma ne leen dama amoon ay souvenir si moom surtout bu muy gën a nekk xale euh, bu ñu bu ñu ubbiwaan buntu vitre bi rek si pouponnière bi foofu damay damay gis ni que da doon jooy pour ne day génn ma ne leen lii nu mën a nekkee moom déjà du gis ba pare day jooy pour génn ñu ne ma noo yàlla moo moo moo leen defal loolu ñoom dañoo intelligent mm. ma ne ko ah ok ma ne ko mais nan lay xamee ne bunt bi ubbeeku na ba pare xale la nan lay xamee te du gis mm. mu ne ma parce que ñoom dañoo am flair déjà bunt bi suy ubbeek bruit bi ba pare ak lumière du jour bi dafay tàppe ci seen ci euh, seen bët yi ma ne ko ok après fàttewu ma xale bi mu ma kii ko daal ma ñeewantal ko trop ma ne su ma fa demee bëgg naa ko gisaat maa ngi naan su ma fa demee ah du ma ko gis xëy na dañ koy adopté wala affaire yooyu noonu. mais bu ko gisee dafa am lu ma yëg moom aussi ah dafa mel ni moom tamit daf lay fàttaliku ndax moom it kottu na la. non parce que parce que dama doon dama doon foog moom lu bëri. Mhm. xam peut-être fàtte na ma mais. xam nga lu yàlla di def rek. effectivement je l'avais dans mon cœur donc moo tax ma ne naa fa demaat yàlla naa ko gis te mhm. yàlla def na gis naa ko. bi nga lu mu la def. dama dama dama jooy mm-hmm. <laughs> dama jooy mm-hmm. Mm-hmm. Euh, gis nañu aussi ci t-shirt yi nga xam ne sol ngeen ko ngeen rendre ci hommage mm, benn benn soxna tur bi laa laa jàppul Marie Fallou Marie Fallou waaw Marie Fallou effectivement euh, ñaal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana sa rapport ak Marie Fallou aussi dëgëral rek ñu géré ko ndeysaan yaa ni woon doo jooy gérer rek. moom si yan circonstance la génne àdduna. accident. Oh. loolu doy na waaye de kañ c'était ci mois de décembre bi. Hmm. bii nii nii ñu génn. que tu peux me raconter un à Metzef, mm-hmm. à 23h. Mm mm-hmm. mais man yoguma ko sax ci mm-hmm. ci jour bi wala sa mbokk la wala lan la loo leen bokk. kooku sama sama sama sama lépp la. Mm-hmm. elle était elle était même pas elle était même pas une copine c'était une sœur une sœur de sang. Mm-hmm. amul woon jëkkër elle était fiancée wala dem France et tout. Mm-hmm. amul woon doom amul woon dara. ma xëy ñu ne ma def na accident ndeyra ma sama benn copine moom tamit ñoo doon ànd dem Italie bi ñu nekkee xale muy dëkk en face moom ma woo mu ne ma yëg nga lu xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma yii ma ne ko bu dee mauvaise nouvelle la bu ma ko wax ma ne ko bu dee mauvaise nouvelle la bul ma ko wax parce que bëgguma dégg mauvaise nouvelle heure bu ma yeewoo damay ñaan yàlla sama journée di neex ba keroog may tëddaat mu ne ma lii il faut ma wax la ko mënuma noppi mhm. après si la ma nee Agnès dafa def accident ma ma tiitee damay ree may ree ma ne ko accident mhm. mu ne ma waaw mhm. ma ne ko anamu mu ne ma euh, dañ ma woo léegi mais ne nañ ma dafa gaañum rek ma ne ko yow yaa mën a fen la mooy dafa gaañu balaa ngay wax ba balaa ngay informé nit dafa dee doo xam doo am lu la leer mu ne ma mais loolu lañ wax après nag ci laa ci laa kii woote ci numéro ma jot benn adjudant ma ne ko sëñ bi naa def mu ne ma maa ngi fi mu ne ko euh, Marie Agnès anamu mu ne ma lanam nga ma ne ko man je suis sa copine mu ne ma ah mu ne ko waaw mu ne ma désolé de mais yàlla def na li gën mu ne ko lan mooy loolu mu ne ma elle a elle a elle est elle est elle est décédée mu ne ko lan loolu kañ la ak nu mu demee mu ne ma dafa def accident dem si guddi mais moo ngi fii hôpital Grand-Bourg ñu indi affaire yooyu noonu mm-hmm. léegi nag si laa sama copine bi ma woo si laa ko ne man maa ngi dem foo ma dem foofu mu ne ma noonu xaaral ma jël taxi ñu dem ci la jëlee taxi ànd ak frère am Momo après yi lañ ànd ñu dem hôpital Grand Mbour ñu dem fa ma laajte ko fekk ne ñoom tamit ñu ngi doon wër ay parents wam léegi nag pour ñu xool identifier ndax moom la wala du moom ma neen il faut ma gis ko ñu ne ma mais état bi nga nekk duñ la ko wan bu dee da ngay calme dinañ la ko wan mais boo calme duñ la ko wan ma neen waa d'accord tombé amaan na beneen copine am bu fa ñëwoon aussi pour gis ko mais kooku vu état bu ni mu mel ni mu maa ko tane woon sax mais ni mu meloon ñu ne ko duñ la ko wan après mu naxanteeg ñoom yooyu ñu ne ko dinga nga mu ne waa après ñu ñuy dugal ci morgo bi benn par benn man biñ koy génnee sax sama copine dafa daw hmm. ma xool ko mu ne ko ñiis yow yaa may def lii hmm. ay Agnès tax def ma lii ma ko lu tax may def lii ay Agnès dinaa wéet de dinaa wéet ma ne ko dinaa wéet trop kooku defal na ma lu nekk lu nekk defal na ma ko moom moo doon dawal walla dawalul dafa am ay jeunes yu doon foo rek comme ni ñuy def ci tali bi mm. moom mu wàcc liggéeyam jóge restoom di ñibbi ñoom ñu def choc mère moo ko mës a fàtte image bii ma def nii sax pour rendre ko hommage déjà sama photo ma waroon nekk ci yére yi mais fu ma jaar ak moom ak lu ma dund ak moom moo tax sama xel dem si moom ma def ko moo ko defee ñoom ñëpp dañ ne seen yaram dafa daw mu ne ma li nga def dafa rafet li nga def dafa nice mm-hmm. ma ne ko Agnès du ma ko mës a fàtte. Mm-hmm. masa masa àddina nii la donc euh, suñ borom moom dee la njëkk bind dund donc bu ñëwee ak ay dogalam en tant que ay jullit dañ ko war a nangu. yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana euh, sarax si yàgg seen loxo parce que lii nga ko defal rek nga ko deseel mooy di ko fàttaliku tout le temps te di ko ñaanal te dafa bokk ci ndeysaan goro ngay fàttaliku démb donc Agnès yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana ñu lay masawar bu baax a baax mais bi nga defee geste bu rafet bi macha allah dem ci orphelin yi taxawu leen jox leen ay lekk jox leen ay naan jox leen ay couche après yow humainement est-ce que sentiroo benn poids boo oyof ci yow nga jàpp ne yow voilà def nga benn acte boo xamante ni vraiment euh, moom nga yàgg rêvé si sa àddina man tey bu ma nit toppee sax nan ma may ma sa saak bi may ma sa saag bi wala may ma sa perruque bi may ma sa perruque bi tant ma la perruque bi du am lu ma neex dafay mel ni dafa am poids boo ma sas même su ma la ko bëggul may dinaa fexe am beneen boo xam ne man bëgg naa ko pour mën la libérer yow lépp lu may def je le naturellement je avec le cœur même quand je cuisine même su may togg tey gis nga togg yi nii démb laa commencé togg démb parce que dama bëgg ay toggantu même fii sama rakk yi des fois bu ñu wooree dañ may topp naan ma non tey la samedi de defaral sa yu neex yooyu nga naan def. kon nga togg yow <laughs> oh, mii. di si xam dara. Ah. <laughs> dañ ma wax dañ may wax naan ma. ana ana affaire yi neex yi nga naan tey la samedi doo doo kii ma jox leen xaalis ñu dem jënd jëndal ma farine jëndal ma ay affaire je fais des des tartes aux defal ay crêpes defar ay beignets fataaya lu nekk laay def ñëw teg ñu naa ma lii dafa neex parce que dañ koy xëddee ay rakk yu bëgg lekk laa am <laughs> <laughs> moo tax mm-hmm. su may may nit dara am na am naa benn euh, copine boo xam ne noonu lay da day ñëw fi di ma sonal tout le temps sama xaritu yaay la nag mais sama moroom la yaa faatu day ñëw naa ma tey moom di ma sippil tey moom di nga ma jox di nga ma jox yére tey di ma jox leen ma ne ko yaa faatu mu ne ma ma ne ko bi ma mayee sama yére yàggul mu ne ma waa léegi man na kañ nga may jox ma ne ko waa man naa la may mais instant bi aw ma envie may ma ne ko armoire bi gis mu ne ma gis nga yére ni ñu bëree may ma si ma ne ko waa ma ko mais armoire bi yére bëri na de mais man aw ma envie mais <laughs> di ko ruubee <laughs> léegi daf ma naan waa léegi wax ma jox ma délai jox ma mois kañ kañ nga may kii ma ne ko waa xaaral ma ne ko mayee ci xol la comprendre nga mm-hmm. ma ne ko maye ci xol la booy jox nit day nekk mu nekk sa xol man lu ma la lu ma la lu ma la jox boo ma ñaanee dara su nekkul sama xol duma la ko jox mm-hmm. boo ma ñaanee dara ma xam ne mën naa la ko may amaat ko dama la koy jox toog moo tax su may su may def lu baax wala may maye je le fais avec le cœur après damay damay fiix damay liiw parce que loolu man maa ko mën a am comprendre nga loolu man maa ko mën a dem am d'accord euh, donc je vous le rappelle nous avec euh, Bibiche ngeen xam série cœur série cœur brisé Bibiche comment tu as ba dugg ci affaire cinématographie yow dafa mel da nga nekk xale yu soboon yooyu nga xam ne ci lu ne la ñuy dugg quoi. <laughs> yow de gis nga bi ma jaaree sali biir ah, sali ni ma doon def gis naa gis naa am na benn benn kër tubaab bu mag boo gis noonu. ak euh, auberge Khady à côté. Mm-hmm. Euh, li tax ma ne bi ngeen di distribuer ma ne leen. jaar leen jaar leen ñax ñaxal. ñu jox waa <laughs> voilà jaar leen foofu parce que. Mm-hmm. fa laa juddoo fa laa yeroo. Mm-hmm. comme li euh, ñuy gisee Bibiche mu nekk ci série yi affaire yooyu noonu. Bibis dafa am jaar jaar dafa am parcours. ah bon mais est-ce que du ma leen ko réserver. <laughs> non loolu mënta <laughs> comme comme comme nga gis benn picc rek jox ko jox ko benn affaire bu ko fa tee non non <laughs> jaar jaar boo ñu mënee ñëwal un tout petit peu avant ngay nekk avant ngay nekk actrice bien sûr. Mhm. ci lan nga jaar Bibis. sama enfance nga bëgg a wax ah, sa enfance parcours bi rek nga résumé ñu ko vite fait bala ñoo dugg ci actrice bi. ok man nag damaa nekkoon benn xale boo xamante ne j'étais très adorable. Mhm. ba pare sob man mag ñi rek laa doon tooñ. mère mhm. damay doom sax ma xëcc sa kol bi wala ma xëcc sa. <laughs> Ah, <laughs> di leen ruube moo tax dama nekkoon seen gaañ. Mhm. nekk seen xarit seen jëkkër yi naan ma sama chéri dinaa ma dinaa la rey tey bu ma la jàppee. li <laughs> ma def yooyu noonu. mais xam nga rek soo soo dundee man dund dund lébu laa dund. parce que sama yaay lébu la. xale tefes. xale voilà dama doon wàcc euh, une heure war a man xadi saw xadi kebe maamu caam nday ami ñu dem ñu dem plage comprendre nga hmm. xam nga nu ñu doon def sama copine boobu léegi mu ngi France nday ami hmm. amuñu maillot de suñu yaay dañu naan bu ñu demee pour jël maillot de bain dañu naan bu ngeen jëlee maillot de bain leen di rey bàyyi leen géej dañoo sangu géej ba suñu karaw yi dafa blonde hmm. suñu catu karaw yi dafa dem ba ay mool lañ doon niroon hmm. dañoo dem ba dañ ñoo bërgaloon au fait parce que chaque jour dañu doon dóor chaque jour dañu doon dóor xam nga xale tefes bàyyil géej bàyyil géej bàyyil géej duñu dégg hmm. bu ñu wàccee sama ko bi ne ñu am naa am naa ay maillot de bain ñëw leen daaye mi mbay xam na nu muy def voilà moom day jël mbuus gis nga mbuus yu cent yi mbuus cent yi lay jël bënn fii bënn fii léegi ma dugal sama tànk dugal fii li ñuy jàppee mbuus bi def fii def fii nii sol ko loolu moo nekkoon suñu maillot de bain. Malick moo may laaj mbuus yooyu kañ ngeen koy solaat Malick a may laaj loolu mbuus yooyu kañ ngeen koy solaat. man mbuus yooyu su ma koy xalaat damay ree bay yi des ma woo ko téléphone ma ko yow ma ko yow ba yow ban idée nga am naan ñu ay bu ñuy ñibbi nag dañuy sangu ba timis hmm. benn jour ñu fay ba ci benn gaal toog fa jënd suñuy nii la ñuy fayee tey biscrème yi di fay ba ci gaal gi toog ni ma la limal noonu de. fa la ñuy toog di waxtaan di waxtaan ba affaire yi commencé niis benn jour nag nawet la parce que des fois requin yi dañuy. dañuy romb parce que nawet bu taw bu ndox mi di bëri. dañuy jege si. Hmm. ñu toog fekk sama benn copine jékki xam nga ay xale lañ mais moom moo ñu gën a précoce mu daal di gis règle mm-hmm. bi mu gisee rek mais nag moo si gënoon tàppet du wax turam nag <laughs> mu sol blouson bu weex tubéy blouson bu weex moom la soloon mm-hmm. jékki affaire yi di ma ne ko déret <laughs> <laughs> ma ne ko yow rek rek déret la gën a bëgg <laughs> ma ne ko requin deret la gën a bëgg yow tey rek requin te yow gis seetaan nga film requin ma na ko requin tey rek la ñuy lekk rek mu bëti rëy yi nag mu commencé ma ne ko ah da ngay jooy ma ne rek xoolal fekk xadi saw plongé na nday ami aw na ne man mi koy tiital maa gën a tàppet <laughs> mu naan ma tey laay dee ma ne ko tey ngay de tey la ñuy dee <laughs> mu naan ma rëkkee bi fu mu de ma ne ko rëkkee bi de gis naa ko mu jaar nii. mu <laughs> toog ah mu jëntee dama ko tiital ba mujjee man dama tiit. parce que li ma doon wax sax du rëkkee xaw ma sax da rëkkee laay wala gisuma rëkkee. <laughs> d'accord léegi léegi nag foofu la ñëpp dem ba mu des ma moom. Mhm. moom ñemewul plongé man mi ko tiital ñemewuma plongé. Mhm. suñu benn tonton. mu mujjee taal gaalam ñoom ñu dem wax ko expliquer ko moom mu taal gaalam ñu récupérer ñu yëpp ñu si gaalam. <laughs> yóbbu ñu ñuy ñibbi. <laughs> tellement ay bêtises rek lañ doon def. si si à part euh, ça nga dem ba xaw a màgg xaw a xàmmee. Mhm. Euh, yan métier nga jar avant ngay métier laa def avant may def actrice. Euh, j'ai fait l'hôtellerie. Okay. restauration. mais vi comme ni ma la dama sopp mhm. defuma cuisine. defu ma baax defu ma dem hôtel Neptune laa dem sama benn cousin fa la nekkoon Bernard Diouf mm-hmm. ma daal di dem ñu defal ma stage ma def animatrice j'étais devenue une animatrice d'hôtel te ma ko après ñoom ñu formé ma parce que animation dafa neex mm-hmm. tout le temps en contact avec des touristes avec euh, tout le monde képp ku nekk ci hôtel da ngay am contact ak moom da ngeen di nekk da ngeen di def ay jeux def ay promenade def ay aquagym tout le temps te euh, en activité. léegi nag mooy affaire bi neex man ax ah, man du dem di togg ci ay waañ du ma dem di dem ci ay salle <laughs> du dem ci ay bar <laughs> n'empêche que neex na euh, ma ne garaawul animation moo dàq après nag noonu ci laa fa jóge euh, tonto Souleymane tu connais tonton Souleymane. man Ali. Ali Ali Diouf sama doomu baay. Mhm. de la série Infidèles. Euh, benn jour ñuy waxtaan rek mu ne ma. pourquoi pas nga kii ci série affaire yooyu noonu yor nga profil et tout ça ma ne ko man non série mu ne ma mu ne ma ne ko non mu ne ma si mën nga ko nekk mu ne ko ah bon mu ne ma ok je vais envoie moi photo dinaa ko balancer ba benn jour ma toog nii rek. Euh, waa Evenprod woo ma hmm. ñu ne ma c'est Rokhaya Diouf ma ne leen oui ñu ne ma dañ na soxla woon fii casting hmm. après si laa dem jour bu ma demee <laughs> bii ko dama tent hmm. léegi dindi naa ko rek bii dindi naa ko bi may dem perruque laa sol bu frisé bu gàtt ma ñëw def casting et tout jékki Jean maa koy nuyu de passage mu jékki ne ma est-ce que tu peux enlever ta perruque mu ne ko ma perruque mu ne ma oui fekk def nañ casting beeg yëpp ba dara desul lu dul dem ma dindi perruque bi rek gis bopp bu weex bi mu ne ma voilà lii la wër lii laa <laughs> soxla mhm. après ma ne ko ah waaw mu ne ma yow ñaari personnage nga yor mu ne ma mu ne ma tu es une fausse timide toi. jigéen nga. yaa ngi dégg. <laughs> papa nee na jigéen dafa <laughs> léegi nag après si la kii ak ñoom après ma dem. après fàtte naa sax man defoon naa ay casting yooyu ma jékki benn jour tamit ñu ñu woowaat ma rappelé ma. Euh, ñu woo ma salut c'est Rokhaya ma ne leen oui c'est moi après euh, ñu ne ma tu peux tu peux venir euh, à Dakar ma ne leen actuellement ma mënuma ñëw Dakar ñu ne ma waa dañ la sélectionné woon donc dañoo bëggoon nga ñëw pour benn série affaire yooyu noonu. Mm. après si laa ko ne d'accord mais da ngeen may may temps ma xool ban jour laay mën a ñëw. après parce que sama xel ne lu woon sax si ay kii yooyu mu bett ma après ma ne ah garaaw bàyyi ma dem rek. après si laa jóge fii Saly ma dem Dakar euh, ma dem ma gis Chérif ak Cheikh ñu baax mm-hmm. bi ma demee dem seen bureau toog noonu ñu waxtaan affaire yooyu sëriñ ma ne dafa am benn euh, série bu ñuy waaj a def bu bees bu tudd Njabar mm-hmm. mais nag rôle bi ñu lay jox rôle seytaane la ak benn mbaraaneuse <laughs> après nag ma ne leen ok pas de souci après si laa commencé di dem tournage Dakar di jóge Saly di dem Dakar après ñu bëri dañ mën a wax waa lii dina métti de yow heure bi ngay yeewu fii war a dem Dakar ban heure ngay yegg nooy def ma ne ah teel a la boo teel a moom mm. di nga yegg Dakar parce que Dakar fii soreetul mm. noonu laa def ba première saison jeex après deuxième saison xam nga après benn jour ma toogaat aussi comme série bi Cœur brisé ma jéem parce que déjà defaroon def naa casting parce que maa ngi que maa ngi Even Prod mm-hmm. c'est une famille voilà maa ngi leen di aussi de passage toute l'équipe technique mm-hmm. di remercier monsieur Ibou Guèye mm-hmm. waaw kooku c'est un grand monsieur très gentil waaw koo xamante ne ñun ñëpp la yemale euh, et tout ça di remercier équipe technique Papa Thier moom nga xam ne moom mooy gën a sonn Papa may ma ndox Papa Thier may ma lii Papa Thier jëndal ma lii dama noonu laa ko sonalee mu dem jënd ni ma demal jël demal def lii xam nga et tout ça xam nga d'accord léegi yow rôle bi bi nga duggee ci kër brisé jëlee nga fi rôle boo xamante ni même bu dul jeu rôle bi look bi nga xamante ne adopté nga ko te sa bobbee yooyu noonu après bi nga géré série bi ba génn ni la population bi di xoolee ci société bi est-ce que jàppee wuñ la benn femme bu m ma gën a xam quoi. <laughs> waxal moo bi kat. non duma wax moo bi par par quoi est-ce que jàppee wuñ la yooyu quoi di la ko xoolee. non même pas ah je sais pas peut-être parce que man moom kaay ma wax la. Hmm. io sono italiana sénégalaise. alhamdulilah coow am na nag coow am na de coow am na donc yéen ma casquette bi tuuti na jug tuuti. <laughs> casquette bi na jug tuuti voilà <laughs> sa image sa kanam dafa xaw a nëbbut nga yow lan loo làkk ni bu bàyyi ho detto una italiana senegalese perché sono cresciuta in Italia maanaam su ma ko dal 2007 è la prima volta che sono stata in Italia sono andata più di sei volte in Italia sono stata adottata con, con una famiglia italiana. Ah, donc yow euh, italienne nga genre am moo tax yenn am na yenn détails yoo xamante ni voilà yow doo ci focus de trop quoi. waxuma la lool de. ah na <laughs> tuuti am na ci. Euh, man genre bu man bi ma nekkee xale genre sama yaay moom moom moom jàmbaar la moom liggéey rek la xam. moom ñëpp ko koy waxal moom liggéeykat la gis ngeen bi ngeen ñëwee va et vient dugg génn moom loolu la xam jàmbaar la moom da doon liggéeyal benn euh, femme bu ñuy woowee Aline xam nga bu ñuy romb sax yaa ngi gis maa ngi won sama xarit benn kër bu ñu bind Aline sali foofu hmm. naa leen fii mooy sama kër turandoo fi mooy sama kër turandoo hmm. sama yaay moo ko doon liggéeyal moo doon nekk ak moom tout le temps xam nga moom tamit mu ñëw dëkk si ñu dendee kër c'est une française Aline Condé loola tudd Euh, moom mooma ma mën naa ne sax moo ma yar avant italien yi mm-hmm. c'est une française moo ma daan jox biberon moo ma daan sang moo ma daan couche moo ma daan defal lépp sama yaay moo ko daan liggéeyal moo ma yar après benn jour ay italien ñëwoon salivi ñun si plage bi xam nga mooy loolu bu xale tefes laa mm-hmm. ñu foto sama yaay affaire yooyu boobu sama yaay mu ngi nekk xale bu ndaw mm-hmm. ñu foto ko dem biñ demee nag xam nga tubaab dafa am kóllëre mm-hmm. affaire don yi ma def nii tey mm-hmm. mm-hmm. sàcc ma ko de. da ko doon. ñoom ñoo ma ko yaree. yar dafa am solo. sama yaay dafa mën joxe ñam. moom day préféré yàq lu tuuti pour ñun. te bu bool bu mag. buy dem yóbbu ko euh, fi muy nekk. wasal yi xale góor yeeg chauffeur yeeg ñëpp mu jox leen ñu añ moom loolu daf koy dafay kontaan tey bu boo romboon nii nga ne ko mère doo mu tibbaaleel tey. bu la tibbalul tey du kontaan. du kontaan du nekk. du noonu moom joxe rek la xam joxe. Mhm. maye la xam. Mhm. ma ñëwaat ci sama parents yi. Mhm. comprendre nga ñooñu ay italien lañ bi ñëwee photo ko dem ñu dem Italie affaire yooyu noonu. après des ah, années ah maa ngi ñëw. ñoom ñu dem ay ñoom ñu dem après des années ñu ñëwaat Sénégal yore photo bi di wër sama yaay. ñëw sali ñax-ñaxal bi wër sama yaay affaire yooyu noonu biñ ñëwee tak xam nga nit ku soxor moom dafa yàgg démb la tey soog a ñëw ñu ne ko kii si bi kii dee na bu yàgg laa ilaaha illallaah te fekk mu <laughs> ngi nekk xale boobu juddooguma sax kii dee bu yàgg mhm. tubaab bi ne tubaab bi xaw a choqué dee non kii mënul de parce que moom dafa fippu ne carrément dafay ñëw Sénégal pour sama yaay léegi nag bi mu ñëwee Sénégal ñooñu wax ko loolu mu choqué mu dajeek benn waaye waa ji ne ko xam naa dañu leen bëggoon jaay affaire yooyu waa ji ne xam naa ki ci photo bi kañ dem ma woon la ko mu ngi dëkk biir mbuur affaire yooyu mu dem ba mu woo benn geel comploté ak moom ne ko in ay tubaab ñooy wóor benn xale bu jigéen kii xaw ngeen niroo su ñëwee rek neel yow la ñu comploté après tubaab bi dem foofu nekk fa affaire yooyu noonu xool femme bi xool photo bi xool femme parce que sama yaay moom elle était spéciale ba pare elle timide sama dafa comme man ma kii elle pas comme ça sama yaay dafa ragal dafa dafa am kersa si nit léegi ñu xool xool paa bi ne ko non kii du astulo xamul ne ko kii du moom daa nag mu ne mu ne ba muy ànd ak euh, première femme bi nga xam ne moo jur taawam moom la fi njëkkoon àndal deuxième fois bi ki jur euh, ki nga xam ne moom a yar kook la fi àndal hmm. te kook dafa bañoo ne ko doo dem Sénégal hmm. finalement moom mu ànd ak moom léegi nag bi ñu ñëwaatee mu ne ko fi ma ko xamee woon fi ma ko fotowee woon nañ delluwaat foofu yàlla mooy defar foofu hmm. euh, kii ne tubaab bi ne fii laa ko xamee woon xama laajte fii léegi bi mu ñëwee mu ne mu ne mu dajeeg sama rakku yaay ba nga gis ne mu niroowee sama yaay. mu dajeeg kooku kook ne ko kii ci photo bi sama mag la. mu ne ko non yow la mu ne ko non sama mag la dañoo niroo mu ne ko nañ ne ma wan la ko ñu ànd ak ñoom suñu kër ñoom suñu dëkkoon après euh, ñu ñëw gis sama yaay sama yaay gis leen dañu xàmmante rek. ñu mm-hmm. ñu kootu ko affaire yooyu muy jooy nag. Mm-hmm. tey nag mais sama yaay déggul woon français. Mm-hmm. jàngul école mais nag instant bi pour te dire année yu mu def ak ñoom rek. sama yaay lu ne da koy làq dégg na sax italien. macha <laughs> da koy jaxase mélange dañuy ree bay bëgg dee mais elle se débrouille bien. espagnol boo ko làkkee. Mm. mu làkk la ba wër la. loo ko làkk mu débrouillé moom débrouillard la ci lépp yàlla moo ko defal loolu. Mm-hmm. léegi ñu ko tante yooyu noonu tubaab bi kontaan affaire bi tubaab bi ne ko nag dinaa fi toog un mois pour yow. léegi mu toog fi affaire yooyu mais hôtel bu mu nekkoon nanguwul woon kenn di ko servir mu ne sama yaay moo koy toggal sama yaay moo koy defal lépp. Hmm. xam nga sama yaay di dem di ko liggéeyal di ko defaral lépp. Euh, après mu mu ne sama yaay maa ngi dem mais du fa yàgg su ma demee dinaa ñëwaat Sénégal pour yow. mais ne ko waaw parce que dañu doon liyaarante kii di làkk ah, italien ah, ah, kii dégg olof. xam nga. ñuy liyaarante mais au fur et à mesure année yim noonu dem di ñëw di dem di ñëw affaire yooyu samay yaay commencé di sàcc ay mots di ko comprendre xam nga après mais sama turandoo moom dama ko miinoon tellement que suñu kër sax li ma fay toog daawul bari ba fekk <laughs> laa doon nekk tout le temps mm-hmm. mais après sama turandoo moom ma doon fayal jardin affaire yooyu léegi ñoom ñu ne ñoom may fayal école ñoom may defal lépp école bu tëjee ma dem Italie vacances xam nga mm-hmm. ñëw moo tax quand je parle italien je fa laa juddoo affaire yooyu mais genre mënul mënu ma ko fàtte au dafa dem ba nekk ci man mu ngi mel ni nga am sa doom di ko làkk benn làkk mm. day dem ba day day làkk boobu lay xam comprendre nga li may làkkee italien sax du ma ko làkkee français voilà kon italien boobu noonu nga dem ba naturalisé wu moo tax nga waroon sa bopp tent ko yooyu noonu non même pas mm. c'est watu moom dafa yàgg ci man parce que dama ragaloon létt dafa dem dama ragaloon léttu donc su ma bañee ñu létt ma rek dama naan xaar xam naa nu may def damay dem wat sam bopp bu ko defee kenn du ma létt <laughs> léegi nag warta bi foofu la jógee mu dem ba nekk style léegi après ma commencé de daaw ma ko teint nag avant hmm. noonu laa ko doon bàyyi parce que j'aimais pas trop je même su ma léttoo mèche sax damay bàyyi affaire yàgg sama bopp bi pour ñu bañ ma hmm. euh, létt ak yooyu noonu après ma ne ah watu moo daak watu dafa neex sa bopp bi day set da ngay shampoing affaire yooyu di sango di ko kii hmm. xam après euh, ma commencé nag xam nga booy jëm mag moom. da ngay da ngay bëgg ay ay changement et tout loolu moo indi may teint def samay couleur mm. bëgg lu fashion. fashion yu doo yu wee <laughs> en plus ñu jox la role boo xamante ni. Uh-huh. man naka nga mën a nangoo role boobu sax man moo ma jaaxal. Ah. parce que ci rôle bi je pense que da fi am jëkkër nga retourné am far. Mm. yaa def loolu yow. dama si am jëkkër. après ma retourné am far. non ça s'est pa passé comme ça. ça s'est passé comme ça yow daa mel ni seetaan noo kër brisé de. man ngay waxal de. yow internautes yi dinañ la. man sañ séeri. <laughs> non non non genre. Uh-huh. Euh, divorcé gu ma woon. Mm-hmm. mais divorcé naa. parce que ah. boo seetloo. boo <laughs> seetloo <laughs> boo seetloo maa ngi ah. naan. damay dem Italie pour signer papier de divorce yi. loolu mooy que ne nekkatuñu. mais no mais même même boo leen nekkatul te divorce amagul. Mm. loolu mooy ba tey yaa ngi ci buum. non divorce mën na am mais divorce kayit aussi dafa am. yow divorce lan nga divorce nga defoon dafa góo ci woon benn. te ah! xelal ne woon ci kooku rek. yow ko gis nga li ma defoon ah! nobu ma xam ah, nga kooku nobu ma. non mais mais mais nañu dëgg rek kooku nobu ma góor bu baaxulee jigéen mën na ko defar lu tax amul patience toog defar muñal ko. mais kii devant tous les quelqu'un devant le peuple sénégalais. devant le monde entier. mu toroxal ma may wax mu ñëw sama kër nag lu dafay xew. ma ne ko ok maa ngi lay xaar <laughs> maa ngi lay xaar ba nga ñëw. si si mu ñëw rajaxe mariage bi. Mhm. maag Saara nag ay champion waaye Saara du champion sax parce que Saara. Mhm. Saara moom ñun ñëpp la use moom. Saara utiliser nañu. noonu la affaire noonu la yow tamit boo ko jekku woon noonu lu koy def ko Sara utiliser nañu hmm. ñun ñëpp la utiliser mais noonu la parce que c'est de bonne guerre hmm. ci li ma ko jàngatee ah ni yàlla xam day na ci li ma ko jàngatee mais mais mais série bi nga joué ko ba pare après yow ban euh, série bi yan porte la ubbil à part série aussi lan ngay def lan mooy nekk sa activité génératrice de revenu et tout euh, série bi moom ubbil na ma ay porte yu bëri macha mhm. allah parce que man maa ngi ci milieu cosmétique je vends des produits mhm. je fabrique je fabrique des produits en même temps mais des produit de qualité pour ñi nga xam ne dañoo bëgg ay teint yu nice. Mhm. wala <laughs> ma jox <laughs> maa ngi ci loolu maa ngi ci cosmétique bi affaire yooyu noonu xam nga. voilà ba tooguma daal benn maa ngi ci lépp. maa ngi ci immobilier sax. waaw ah. ah, loolu moom amoon na ma solo parce que fii am fi villa. <laughs> Eh, mais sa produit yi ngay jaar bu fekkee mën nga jàllale sa numéro ñu jox loo parce que yow moom c'est la même famille. d'accord 77. 467. 84 05. ou bien 78. Euh, loolu mooy numéro assistante bi. 78 900. jàppoo ko bi nga njëkk a joxe baax na. en tout cas boo fi jaayul lu baax moom maa yow dinañ ko dinañ ko diggaale en tout cas euh, c'était un plaisir de discuter avec toi d'échanger de faire une interview avec toi. et derrière on une personne vraiment magnifique. am nga jëkkër yow. non. am nga faral <laughs> kon baax na waaw waaw baax na d'accord léegi mën ngeen couper caméra yi. Ah, ñu baax ñu tàggatoo bàyyi ngeen koy couper. waaw tàggatoo non non non non. bañ wax ngeen ni coupé caméra yi. waaw gis ngeen ñi fi nekk suba ba léegi dama jàppale. gis ngeen cortège bi ma àndal. dama léegi danga may bàyyi ma tëj après la nga sant damay damay remercier balaa ngay tëj damay remercier ñi nga xamante ne. Mhm. sama ami d'enfance lañ gis nga. Mhm. ñoo fi nekk am na ñoo xam ne sax newuñu fi. Mhm. mais jot amul maa ngi remercier euh, Rokhaya Sène. Aïda Ka ah Fatou Ndiaye. di remercier Ndeye Rama di remercier euh, Nogay. Mhm. di remercier euh, Mame Daba sama tante bi ngeen fi gis sànq. Mhm. maa ngi remercier euh, Mor Sadji mhm. sama cousin sama xarit sama lépp. kooku moom mooy sama lépp. di remercier Ibrahima Mbengue. di remercier samay samay waajur samay parents. di remercier aussi toute ma famille. di. def un grand big up képp kuy bëggee Bibiche mhm. di leen ñaanal jàmm di ñaan nag ñu ñaanal ma jàmm ñaanal ma xéewal yu bari sawan baawaan ci barke weeru koor bi yàlla defal leen yéen tamit euh, gudd fan may leen wér euh, projet yëpp yàlla def ci sutura incha allah saa saawaan baawaan di ziar borom ndigal Fall. waaw <laughs> waaw Baye bi. <laughs> gaynde Kileer Fall hmm. borom ndigal hmm. nga xam ne suñu maam la. Hmm. suñu xarit la suñu papa suñu lépp la. gis nga këram a nekk fii. suñu ginnaaw nii. après naa leen wan. waaw borom ndigal. <laughs> sant bu baax. di wax alhamdulilah rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ku sant ñu dooli la yàlla ñu suñu borom dooli euh, Bibiche la woon kër brisé moom lañ doon waxtaanal euh, jël nañ temps am nag lu bëree bëri mais c' normal parce que je pense que la première fois nga def ITV. waaw maa ngi euh, soog a def interview. dama dama dama bañoon sax parce que. dama bañoon Sénégalais yi dañoo am cër ci non je moo tax ma nangu. moo tax ma nangu parce que des fois am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan Bibiche mais bëgg nañ xam au fond kan fan la dëkk fan la juddoo xam nga fu mu jaar jaaram un xam nga koo xam daf lay suivre di la bëggee dafay bëgg a xam. Mhm. yow yaay kan. mais man maa bëggoon bàyyi ba xam na bi xaw a màgget tuuti. soog a mën a def interview. <laughs> Bébiche ma ngi noonu nit ku baax la nit ku oyof la sincèrement te euh, borom xol bu naaj la tey ku yendoog yow même bu fekkoon dafay am préjugé bu ñaaw ci yow bu gisee vidéo yi dina xam ne nit bu baax nga te loolu mooy l'essentiel nit xol la rek. donc euh, yàlla yéene sax lay lay lay ñi ma yar ñi ma yar dëgg mooy tubaab yi ma lay wax mhm. à part sama yaay sax nga xam ne moom moom joxekat la tubaab yi ma yar ñoom dañoon dañoon créer ay association ay mhm. ay chirurgiens mhm. ay dentistes ay italien yoo xam ne ay nit yu borom ay borom daraja ñu am euh, ñu yàlla may ñoo xamante ne dañ naan ñëw Sénégal fii def association di dem ci village yi ay njagañaaw di dem ay luul yi dem ay ay euh, comment dirais-je ay euh, fële ngéeñeen mhm. di defar di tabax ay teen parce que ñoom tamit dañuy dañuy sori ci biir te mhm. dañuy soxla robinet dañuy soxla ndox dañu leen di gasal ay ten di leen doon defar ay robinet xam nga di mhm. dem ci école yi di tabax ay école di leen jox ay fourniture xam nga di leen jàppale ci lu bëri amoon demoon na man maa nekkoon tête de liste man ku ñëw rek ne ma waa Aline xam Aline lañ may wooyee waa Aline ma ne leen waa ñu ne ma ay waay doo wax sa tubaab bi mu pare nañu doo wax sa kii mhm. moi Euh, innocente que j'étais tout le temps waaw rek laa doon wax su ma ñëwee sama paree moom gëmeew ma moom kooku moom maa ngi koy indi passage di saluto padre Giacomo Giacomelli e la mia mammina Enrica Stella Viamo tanto, oh, viamo tantissimo, siete la mia vita, avete fatto tutto per me. Okay. e vi ringrazio. doo waxaat de doo waxaat doo waxaat lu leer laa lay wax donc Kalidou ma tàggatoo donc mbokk internet di euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier c'était Bibiche euh, actrice cœur brisé euh, nekk nit bu baax nekk nit bu woyof ñu koy ñaanal jàmm moom ak famille am donc te li nga xamante ni def nga ko ci lu baax tey yàlla na ko suñu borom fay ba wasaare ko ci askanu Sénégal bi yëpp parce que un bienfait n'est jamais perdu donc ñu ngi lay jaajëfal di la remercier c'était votre humble serviteur Petit Gallo Sow j'espère juste que l'émission vous a plu ñu ngi leen di jox rendez-vous très bientôt beneen numéro ak beneen invité Amar